def ab conférence de presse moom en tant que leader du parti Pastef donte ne mi ngi woon dama jàpp ni waroon na ko yëg. dama jàpp ni tamit lañ fa waroon waxtaanee. Mm. ak it bëgg la ñu mm. ñu gis après final par la ñëpp ñu bi. dégg nañ ñoom Khadija Mahécor ñoom ñëpp wax ko ci buntu suma assistant yi Ousmane Sonko dañ ko war a évacuer parce que état am dafa crité ak ñoom ñëpp bokk li nga xamante ni moo di euh, même mot d'ordre bi ñu koy dégg si ñoom ñu dégg ay ñoom dàmb ñoom ñëpp même son de cloche mm. ndax jàppoo ni tey jii ñoom ba ñu demee ba bëgg dara moom mii ndeyu mbili ji waroon nañ ci waroon a c'est-à-dire waroon nañ ci diisoo ak moom donte feebar laaj ko li nga xamante ni moo di gis-gisam <laughs> naka ngay toogee di kaasal koo xam dafa pare après peeral leen ni la man dew ma fenn fii lay toog ko gis nooy diisoo moom Ousmane Sonko kenn mënu ko kon lu tax ñuy génn di waxal di ko waxal à sa place état de santé ma critique non xaaral xaaral penn foo dissocier les choses yow da nga am malade état am doy waar ba ñu évacuer ku ñëw di ko gis ñu ne la mënoo ko gis nga jàpp ne réew mi plateau médical bi n'est pas assez bien relevé nga ne nañ ko évacuer loolu la bépp nit bu nekk ci réew mi am malade ñun kenn xamul lan lañ war a laajte pourquoi dans ce pays lu tax ku feebar ñu ne nañ ko évacuer. mais pourtant xaaral xaaral xaaral ma xaaral xaaral ma ñu toog xaar ba gis ak Sonko laaj moo gën Sonko pare teeral leen ni leen non. non non non ku feebar. kon yéene woo ko jàmm xamoo état am nu mu mel da xaar ba mu tane bu tanewul ci diggante bi nag su faatoo nag dañuy wër na pourtant amoon nañ yéene wax ne nañ ko évacuer non ndox buy fay safara kenn du ko segg dañ doon fay safara période boobu fu ñu tànkee ndox rek baax na. mais la ñu fay kenn sant leen loolu du sant loolu seen yéene la nit ki dana feebar daanu nga hospitalisé mu yeewu na la non jaru ko lii malaise rek la nañ dem ñibbi. chaque jour mu dal ñu walla mu dal ku ñu xam nga nekk ak nit mu daanu sa loxo wala am malaise nga gàddu yóbbu hôpital fay jëlal ko léeg yooyu yëpp mu yeewu na la non liiru dara lii lu may dal la malaise jaru ko nañ dem ñibbi ñoom seen rôle lañ def mooy seen leader ñoom yéene nañ ko meilleures conditions yi pour convalescence am waaw léegi moom bi mu yeewoo moom seen leader na leen noo jaru ko li am solo mooy lii jeex na. et puis bul fàtte ni ils de la politique aussi dañuy communiquer ils parlent à l'opinion nationale ak internationale. ba tey ci son thème euh, ginnaaw ba tey euh, ci sorti bi nga xamante ni def na ko ci forme bi ban analyse nga ciy def Ousmane Sonko mu tëdd euh, voix am xaw a changé kanam gi triste mu def benn capuche bu gris toog ak ay perfusion ci fond bi déjà ban analyse nga ciy une personne abattue. ci forme bi plutôt. une personne abattue laa gis boo xam ne. ko xool xam ni kii ci ay an ci ay perfusion ak yooyu la jóge ku état de santé bu fragile actuellement nii léegi nag loolu c'est à de prendre la responsabilité face par rapport ak état de santé Ousmane Sonko li mu lié ak stabilité dëkk bi am ci appréciation par rapport ak l'avenir dat yi nekk dans le futur seen diggante ak Ousmane Sonko ndax su fekkee pend Ousmane Sonko dañ ko jaga jaga jee keroog ci ñaari oto yi xotti ay yérem pour indi ko tribunal xale yu génn taal nii dëkk bi suñ leen nee Ousmane boo bokkatul élection xale yooyu yan réaction la ñu am suñ leen nee Ousmane Sonko condamné na ko xale yooyu yan réaction lañ ci am léegi nag foofu dama koy lii ak ba président ne am na ñoo xam ne buñ leen bëggee condamné maa ci teg sama conc ndax li mu mun a jural réew mi waaye est-ce que jàpp nga ni réew mi am na kuñ fi mën a condamné mu jur trouble yu raw yi xew ci bu Ousmane Sonko waree rek dem wuy ji Ousmane Sonko jaga-jaga jee diggante ñaari oto booy taal dëkk bi nii Ousmane Sonko en garde à à la section de booy taal dëkk bi 4 jours waaw kooku du ngeen bàyyi xel buñ ko condamné fu ñu jëm et l'État est garant de notre sécurité ak ñun suñuy personne ak suñuy bien su fekkee ni l'honneur de Mame Mbaye Niang doit embraser ce pays ndax foog nga ne war nañu dem ci procès boobu. pour lu tax duñ ci dem. duñ ci dem l'honneur de Mame Mbaye Niang. ci diggante ñaar xaaral wax la rek. kii jàpp ne dañ ko tooñ. ak lu munti am mu ko. ak lu munti am. moom mu ne am na preuve. même bu génnewul preuve yi. même bu fekkoon ne ma jàpp ne dañ ko war a bàyyi mu ne. waaw xam lu tax Mame Mbaye Niang honneur am ëppul bakken yi faatu déjà y a eu trois morts nel benn Mame Mbaye Niang honneur am ëppul bien yi yàqu. Mame Mbaye Niang honneur stabilité réew mi amul benn doomi aadama bu honneur am stabilité dëkk bi et la candidature de Ousmane Sonko est liée à la stabilité du pays. Bignona am na ko fa ñàkk bakkanam mu ngi nii. donc yooyu yu jar a xel la. Mame Mbaye Niang rek sutul vie ñi génn àddina waxuma la ak honneur am bakkenu Mame Mbaye tiimul bakkenu ñetti nit di génn àddina waxuma la nag honneur Mame Mbaye l'État doit prendre ses responsabilités et flexible envers les dossiers juridiques de Ousmane Sonko dafa am réalité yoo xam ne danga nga koy jël en considération doo ko fooyee doo ko maam doo ko bañ a ñàkkal fayda boo ko ñàkkalee fayda rek mun na laa làq dafa yoo xam ne da nga koy bàyyi xel ba mars 2021 bi émeutes amee dañ pare na Covid dee ko waraloon ñu bëri na leen duwuloon Covid c'était lié à Ousmane Sonko et a preuve mooy li am barki dem. d'accord penn bu lakk-lakk amee ñun ñëpp ay yàqule ci dëkk bi. d'accord bu lakk-lakk amee ñun ñëpp ay yàqule ci bi mu nekk lu ñëpp ñaawlu ay ndaw ñàkk ci seen bakkan euh, dinañ ci ñëw léegi ndaw bi nga xamante ni faat nañ ko fi ci Dakar benn bokk yaakaar ñi ngi annoncé ab plainte contre parti bi di Pastef ak kii di Ousmane Sonko dinaa ci ñëw léegi am gis a gis-gis mais bu ñu taxawee Cheikh Oumar fi nga taxaw di yàq-yàq ba tey ci ci fond euh, discours bi nga xamante ni Ousmane Sonko def <coughs> sortem ci fon bi ginnaaw ba nga analyser forme bi ba pare ni nga ko gisee keroog et tout sama grand Babacar Fall gi di ko sax UNICEF sama grand dafa neex mm-hmm. donc bu buñ demee ci fond bi jàpp nga ni Sonko waroon na yem rek ci ni toj yi mënoon naa ñàkk ci ñaawlu li fi am keroog toj yi mënoon naa ñàkk ci waxam. ndax Sonko waroon na. waroon na yem ci ci ci loolu kese bi mu ne. toj yi nag mënoon naa ñàkk. mënoon na ñàkk. ndax mënu woon dem plus loin c'est-à-dire xale yi même bu fekkee jaral naa la ngeen génn bu ngeen tojjate bu ngeen yàqate loolu ku ko def tey ji tooñ nga ma wala. Ah, genre discours yooyu. alors ah, nag ça Sonko d'apprécier son discours. mais toj yi mënoon naa ñàkk tout simplement. xam nga toj yi moom ñi mu àndal lañ ñu ko toj seen oto du gis nga femme yooyu ñu toj seen oto kon toj xam nga de tout part xam nga Sonko bëggul toj yi Sonko bëggul arrestation. ah moom laa la wax. kon Sonko. bu fekkee bëgg ko ndax war ko woon gën a. non c'est-à-dire Ousmane Sonko. gën a xeex du moom mooy xaaral mooy contrôler. booy yi li ñuy def action wu booy yi te boo bàyyi xel à chaque fois bu booy yi di toj Sonko du ànd ak sa bopp. xaaral xaaral voilà xaaral ma ñëw. moom mooy woote tamit balaa ñëw ci booy yi bul wo bul lañ sama sama li olof di wax. bi booy tojee mars 2021 Sonko ngi section de recherche mun ta wax mun ta communiquer mun ta bind message donc du moom mooy wax booy toj leen bi booy di tojaat bii paa mi ngi sous perfusion est-ce que kon du ñu bàyyi xel ne du Sonko mooy wax booy yàq leen a yàq leen. que moom it du bàyyi xel mais booy ñooy bàyyi xel. xaaral xaaral moom mooy xaaral te bu ñu toj yàq du ko fekkee. booy kon est warul di bàyyi xel ci woote yi muy woote. est que ñii ñiy def li tax Sonko di woote ñoom du njëkk bàyyi xel maanaam première responsable xam nga ñan la ñiy def li tax Sonko di woo booy muy l'état nga xam ne mooy garant de notre sécurité Sonko du garant de notre sécurité de rien du tout man ak yow Sonko amul compte bu mu ñuy jox man a yow faluñ ko dénkuñ ko ñun état lañ fal di natt impôt di ko jox jox ko force de défense et de sécurité di ko nattal budget mu leen di armée jox ko jumtukaay yëpp ngir mu assurer suñu bien xam nga mu mel. nga yor sa gardien dénk ko sa kër ñuy tëb sa kër di sàcc nga génn waxoo gardien bi topp waa kër yi nu mu tudd topp waa këru koñ bi naan leen waroo leen tabax façon boo xam ne sàcc mën na ci jaar dugg sama kër yow sa gardien ngay waxal. ba tey ci fond bi sa gardien xaaral rek sa gardien mooy l' état du Sénégal da war a fexe ba ñoom lépp loo xam ne maanaam état lii am nañ renseignement. le président Macky Sall ci taabalam RG yi dañ koy jox stabilité dëkk maam situation sociale lu dëkk bi lan la l'opinion favorable na ko ou gis-gisu opinion bi ci dossier judiciaire bi lan la période boobu xam-xam bi la maam taal bi nan lay but butee ndax sénégalais yi ànduñ ci dossier bi ndax dañoo radicaliser wu ndax jàpp nañ ne lii toon na ndax jàpp nañ jaay dooleel le président am na information yooyu yëpp des jour avant ñuy woo Sonko waaye boo amee information nii l'opinion jàpp nañ ni lii procès farce la vouloir empêcher la candidature de Sonko la Prodac la majorité de sénégalais liñ ci jàpp xam nañ ko waaw ndax yow war ngaa bàyyi yow miy garant wu stabilité dëkk bi mais ñu jëm ci cafouillage bii nii ñu ñu àgg keroog. lan nga bëgg président def dans ce mooy la mu waxoon. dossier yoo xam maa cee teg sama. coono da nga bëgg daal président teg concom ñu bañ a yegg ci problème président moo war a teg conc bu dee dëgg ci dossier Ousmane Sonko yëpp ñu dem élection. mais yaa ko gën a xam. man li ma bëgg man pourquoi à chaque fois su waree dem yoon ngeen ni non président moo waxoon ni dossier yi dañ ci war a dañ ci war a teg suñu coono. yoon jeexut Sonko jógewu fi station euh, situation social lu dëkk bi permettre ko mun nañ ak procès mi ba ci kanam parce que dañuy bañ ku ñu laqal ak ku ñu yàqal moo tax. mais moom nag ba mu waree bañ ku ko laqal ko yàq jàppandi Sonko ba muy wax tey jii. ba wax ay waxam ci Mame Mbaye Niang ba ne am na ay preuve. moom loolu a moom bëgg ci réew mi. am mu jëm Sonko il est dans moom moo waree moom moo war dèjà. ba léegi yow dama la ba yàqal yow Ousmane Sonko est-ce que dafa bañ na du dem procès déedéet. Sonko saa yu ñu ko wooyee ci dossier. non mais yow yaay insisté sànq ba tey ni président dafa waxoon ne am na dossier yoo xamante ne ku dem mbir bi waruñu yegg ci yegg procès. li président war a def muy yàq yi nga xamante ne am na fi. li président war a def ak li Sonko war a def bokkul président li mu war a def lii la li Sonko war a def lii Sonko il est dans son rôle s'opposer mooy wax naa la sànq. d' accord dénkuñ ko laajuñ ko compte. d' accord président nag lañ dénk di ko laaj compte. d' accord hmm. d' accord ba tey ci fond bi par rapport ak sa analyse euh, Cheikh bi nee na. bamtuwaat na ko ginnaaw ba mu ko waxee waxaat ko nee na euh, euh, le docteur Niang refuse de briser le secret médical depuis trois jours d' accord merci tuuti euh, ba tey ci fond bi par rapport ak nee na non poste bi tuuti tuuti affiché laa dem lire nee na waxoon na ko bamtuwaat ko ni kenn du ko tracé li nga xamante ni moo di yoon ba muy jaar est-ce que lu ni mel tey ji buñ ca taxawaatee bu ñu demee bala 30 incha allah lu ni mel du amaat ko. léegi yow est-ce que jàpp nga loolu ci jaaral nii ak. bul jaaral waaw léegi delloo naa la laaj. man ak bépp sénégalais mais nag mais tontu bi noo la moom moom itinéraire Ousmane Sonko bu ko neexee xoolal monsieur Sonko dañ la convoqué lundi à 10 heures Sonko bu ko neexee génn këram 6 heures du matin dem Touba naafila julli fajar naafila fa. jaar Tiwaawan ziyaare ñëw ba ñëw ba fële fi ñu jaay mango yi wàcc lekk màngo dugg Dakar dem Corniche naan ndoxu ko li am solo mooy na ak si heure bu ñu ko convoqué tribunal bu oto bi di daw ba ci àgg muy arrière sax moo xam est comprendre bu oto bi dawee ba ci àgg mu arrière sax moo xam li am solo mooy heure bi ñu ko convoqué mu teew bu teewul si juge d'apprécier ndax beneen yoon bu ko convoqué. du ko woo la veille indi ko wala du ko woo la veille mu nekk ci cadre wala tribunal maanaam loolu fi wu juge d'apprécier mooy woo naa la ñëwoo ak si woo à l'heure mais bàyyil ba loolu am yaa xëyta mu laa certes il est euh, euh, defagu fi lu fi kenn def le président Macky bi ñu ko woowee nii Ousmane Sonko def rek la defoon ba muy dem wuy Idrissa Seck pareil Ablaye Wade pareil bépp homme politique bu buñ fi woo nga dem ak say nit El Malick mii dana dem ak ay sympathisants. d'accord dana dem ak ay avocats képp ku ñu woo ci justice ngay homme politique da nga dem ak say sympathisants ak say militants mais jeex na. d'accord certes il est libre de circuler à sa guise. Mhm. liberté la bu ñëpp am. Mhm. nous sommes d'accord. Mhm. yàgg nañ fixer ay politiciens yu def keroog da yaa ngi may exemple ci Idrissa Seck bi ñu ko convoqué. lu mu def ak yu mel. mais ndax jàpp nga ni tey jii Sonko ak dayoo bu bu mu am. nga a mais ndax jàpp nga ni tey ji war nañ ko bàyyi moom ak dayo bu mu am buñ ko woowee muy tracer boppam <coughs> itinéraire fii laay jaar romb taxaw ci ko otom di nuyoo ba keroog mi yegg di politique. waaw mel ni kuy meeting. waaw dama toll foofu. waaw ndax gisagoo benn yoon ñu ci teewi bakkanam trouble am. kon da bëgg ñu bàyyi ko mi def ko oh. saf ci réew mi. fekk entrave lu suñu liberté de circuler man ak yow te man gisaguma Ousmane Sonko ñu bàkkoog sago mu tànn yoon bi mu bëgg am trouble am yàqu am maanaam kafura mais trouble mënu ci ñàkk. non dama laa moom moo toll noonu dë dë dë bu ci trouble amee. bu rombee nit ñi fa ñu topp ko bu génnee taxaw di di loxo nit ñi fa ñu topp ko ak nit ñi génn bokkul ne nit ñi génn bégeer ak trouble bokkul. bu de xaaral xaaral dë dë bu dee loolu la kon réew mi le président ak kilifa yi kuy génn créer trouble trouble bi bu amee moom nit ki da nga koy notifier xanaa jàpp ko bu dee Sonko trouble à loolu public ci la dëkk lu tax muy ñibbi këram bis bu ne. on est nag. nee naa la nga bàyyi di ma laaj. gisaguma benn yoon Ousmane Sonko taxawaayu laaj bi nga taxawee tey laa bëgg nga wàcc ko. gisaguma benn yoon Ousmane Sonko jug jëm benn bërëb bavure am ay yàqu-yàqu am waaye saa yu Ousmane Sonko jug jëm benn bërëb ñu dañ ko xëy aaye bavure am yàqu-yàqu am waaw ñoom du ñu soppi seen doxalin mustu jug jëm fenn mu am yàqu-yàqu waaye saa yu jugee jëm fenn ñu bëgg ko ay yàqu-yàqu am.